ñeneen mën nañu am opportunité aussi pour ñëw seetaan déglu yu am solo yi nga Moustapha lu ama am solo a nekk nag loo lu doy waar la Ahmed Khalifa Niass ak euh, ki nga Samuel Sarr de l'énergie énergie euh, nekkoon fi directeur de la Sénélec Khalifa euh, Ahmed Khalifa Niass euh, borom Gemoudour, révélation explosive de Fadilou Kaita, certainement on a émission bi mon amoon voitures offertes à l'État du Sénégal Ahmed Khalifa Niass et Samuel Sarr éclaboussés par un détournement de 3,5 milliards 3,5 millions milliards millions après Ahmed Khalifa Niass et Samuel Sarr ont détourné et revendu des voitures offertes à l'État du Sénégal. Voilà je suis Keita moo ko ci mhm. émission euh, grand jury bi daw RFM bi muy expliqué li nga xam ne moom la fekk CDC. maanaam ay oto yoo xam ne dañ ko mayoon état bu Sénégal. Mm-hmm. ñaar ñi détourné ko jaay ko ak mm-hmm. coût de 3 milliards 500. Mm-hmm. léegi nag loolu xam nga li ci fii fii fii wax ji di gën a nekk fi problème bi di gën a nekk. mooy damay def rappel. am na bés Fadilou Keita defoon benn poste ci page am quoi. genre benn coup de gueule di wane ne affaire yi. il faut il faut ñu taxaw ci ko waaye il faut ñu taxaw ci maanaam. ba am sax ñu ne woon yenn information yi dafa am ay rapports yu mu jot. yoo xamante ne vraiment neexul si xol gaa yi nañ def li alalu réew mi niñ ko niñ ko caxa caxatee. am na ñu sax naan nekkoo ci euh, période euh, ñaxtu. ñaxtu waaye da ngeen da ngeen da ngeen war a poser acte am na ñu doon wax loolu. Mhm. mu am ci tamit ñeneen ñoo xam ne moom démb wax na lu ci tamit am na ñu ne ko proposé ko xaalis bu bëri. Mhm. ne ko ñi fi jógee dañ ko daan jël ay milliards ñëwul ñu def nii ak nii ñi fi jógee nii lañ daan doxalee waaw loolu nag lépp boo ko dajalee li muy li muy li muy firndeel mooy. naka lañ mi. Mhm. xam nga li ñu ni ni ay milliards ñuy jël ko jaar c'est vrai dossier bi demagul justice bañ ne ñoom ñoo def carrément parce que Ahmed Khalifa Niass weddi na démb nee na amul. waaw def na benn wax ne amul amul weddi bu mu jeex tak kon li am ba des yoon ko mën a mhm. yoon ko a a su fekkente lu ñu amee la ñu fay la su lu ñu amul ñu def. Mhm. mais yoon moo ko mën concrètement. mais ci ci ci mbir mi.

loolu bu la ko c'est-à-dire après lépp lu mu bëgg ci boîte daf mais clairement lépp lu mu daf koy am donc pour moi, ne serait-ce que ñi génnee information yi rek day wane ne wax changement mm-hmm. parce que ce fait continue, continuité lañ lañ xam nga révélation yi dina sàmm deram ba ëllëg kenn du mën a taxaw na man geroon naa ko wala def naa ko nii. parce que moom tamit demee dinañ ko dinañ ko remplacer loolu mooy àddina. mais ku dénoncé sax amoo amoo amoo xamoo xam naa amoo fitu. Mhm. di delluwaat ci li nga dénoncé di delluwaat ci yenn pratique yi. loolu moo tax ma ne du fait que ñi ñi ñi ñi ñi ñi taal xelu askan wi comme comme ni ko moom Lamine doon waxee léegi. Mhm. loolu rek lu am solo la. ñi xamal nit ñi ne kat wax dëgg yàlla kat li fi nekkoon lii ak lii ak lii ak lii la. ñun bi ñu ñëwee bañ nañ lii ak lii ak lii ak lii parce que fii ak fii ak fi lañ leen bëgg a jëmee loolu rek pour man ay assurance la yoo xam ne askanu Sénégal dañ koy wax pour man du question weer kenn wala leen de. Mm-hmm. mais dafa baax yow boo ñëwee ci kër nga def état des lieux wax li nga fa fekk. Mm-hmm. maanaam xamal nit ñi situation bi moo fi nekkoon tey ci te Sénégal tollu woon na foo xamante ne koo gis li ko ni ni ko gars di waxee système bi doon téye en otage dëkk bi moo bëri. ñi doon ñi doon téye dëkk bi ñi doon téye dëkk bi en otage dafa bëri. et l'impact était difficile pour population yi dañu am doole dañu am doole ñenn yi dañ daan def naka su ñu war leena japp jàpp ñu dem laaxatu ci ginnaw diw hmm? diw bobu ne bu ko kenn laal duñ ko laal noonu lañ mujjé avancé dem hmm. ñen yi def naka su dul noonu dem laaxatu si jabaru président bi. mais pour preuve il y a beaucoup d'hommes d'affaires des milliardaires qui sont actuellement entre ñi arrêté nañ ñi garde à vue ñi mandat de dépôt douane mu ngi def liggéey bu am solo dans ce sens là parce qu'il y avait trop de violations ci lu jëm ci wàllu. Euh, mbiru douane et cetera parce que protection mo fi nekkoon. loolu laay wax justement lépp ñu ko ci kuddu lépp ñu bàyyi noonu kenn daawul wax kenn daawul kaas moo moo ñu indiwoon ci situation bi ñu nekk nii. mais principal responsable. waaw mais responsable bi mag Macky Sall. Mhm. parce que moom moo doon woon sanctionné. moom moo waroon di sanctionné daawul sanctionné moo indi lii yëpp. Mhm. doo sanctionné doo traduire kenn doo sonal kenn da nga bàyyi luñ def noonu la mel ni alal réew mi alalam la. lu mhm. neex waaye def neex na ko. tëju fi kenn ci ci ay ñooñam. c'est ça problème problème le euh, beau problème là, de wala. waaw euh, Fadilou le de passage. Mm-hmm. remercier de vive voix. Mm-hmm. courage ce patriotisme parce que en le voyant parler. Mm-hmm. ou en l'entendant parler le gars il parle avec le cœur. il a l'amour de la patrie son cœur palpite au rythme du patriotisme. Notre gars donne doon sentir benn défaillance sur communication mais ça peut se comprendre. c'est ça parce que c'est le cœur qui parle. oui dans ce cas li muy wax damay jàpp ne xàqu rek la dëgg rek lay doon. Mhm. te dafa beaucoup si ñi ont contribué d'une manière positive si ce projet bi xam lan la projet bi wundu contribuer ici, et c'est quelqu'un également qui connaît la caisse. Mhm. parce que faut donc liguer. contribuer ici, on nous fa xalaat créer fa ay mbir. faut mhm. fa di gis. toxaleen bu bon mu koy naxari mu koy combattre ba ak accéder nag téye nag lenge yi si loxoom te lépp di ko liir di gis lépp lépp di jaar si ronom je pense que ne foofu la suñu xel di dalee actuellement li Moustapha wax mu am audace nag parce que am na dans ce pays là am ñoo dañoo jàppoon ay intouchable mm-hmm. ne kenn du leen laal kenn du leen tudd bu ñu génnee yooko sax gaa ñi daw dóor leen ay milliards ñu réculer ñu ne noo eh, fexe ba mu wax moo gën muy wax

nga rendre compte nga rembourser l'état du contribuable sénégalais amul kenn kenn ko xam dafa ñëw rek si sa dayoo wala sa barab bi nga bokk wala nangam man duma d'accord d'accord benn yoon ñu bàyyi ñoo xamante ni dañu nekk des sénégalais à part entière fële na le nga xam lu ñu wax ñu ne moytu leen ko lu ñu jëf ñu neen ko bàyyi mu jàll sur le dos du peuple sénégalais. Hmm. moo tax Fadilou il est audacieux man dama d'accord sur lu mu def te dama koy féliciter di ko encourager di inviter tous les DG. Mhm. di inviter tous les ministères et les ministres yi xam ne ñoo exercer ñu def la même chose. di communiquer li fa nek ñu wax ko nit ñi ñu xam ko. Mhm. ñu xam de quoi il s'agit ak lan lañ fi fek su boba mhm. yenn jafé jafé yi si amee réew mi ñun dana mën serrer la ceinture gëna muñ ta xam ne vraiment fañ jëm danañ fa ag d'accord te. paré nak tabaxuñ ko ci ben fan. te jafé yi ñi ñi sama dama japp né tay ji ni ci jafé jafé lañu nek nekk te ñi ñu ko teg bo ñu fi bayé ko ak gestion bu bon. kon sénégalais encore une fois nañ accompagner ñi nga xam ñu ngi leen di wax dëgg maa ngi dégg benn amaan nañ wax sénégalais yi dëgg mais dëgg weesuwul lii wax ne leen dëgg des publier ay rapport ku ne man see accéder ñu am audace taxaw à la télé wala dans des kii wax ne lii ak lii ay nit ay diw ak diw lii leen def sénégalais yi su boobaa nag ñun sénégalais yi nag ñoo war a takk benn mbootaay accompagner leen gunge leen ba nga xamante fi ñu jëm leen fa ñeme waaye bu kenn génn naan ay wartoon a wax wax ji maa ngi koy dégg sa ñenn ñi mm. wartoon a laal diw te wartoon a laal diw man faut que laay sénégalais laay aviser sur laay avertir si loolu nen accompagner ñii nga xamante ni dal nañ suñu xel pour ensemble ñu bâtir un Sénégal nouveau. le mm-hmm. temps ñu bàyyi la nga souffler balaa ñuy ñëw dernière euh, partie bi nga xam yow lañ koy un petit commentaire sur euh, euh, le président Bassir Diomaye Faye Il y a encore tout à l'heure benn entretien bu à Al Jazeera il dit que Ousmane Sonko n'a pas été dimensionné pour le poste de premier ministre luñ ci mën dégg. non mais xam nga tay ji nit ñi man dama japp ne ay cadre lu xam dañ ko bëgg génné ci contexte am. bu ne nit ñi dañ ko ne dañu yaakaar ne dafay jël ay prérogatives président de la république affaire yu yoonu cadre bobu la expliquer oui ko xamante ne dañ ko doon waajal pour def ko président de la république. mu muñé nek premier ministre. motax mu amul sañ premier ministre parce que constitution mayu ko mhm. pour ñu naan dafay jël taxawaay bo xam premier ministre. amul sañ-sañ parce que constitution mayu mhm. président de la mais il est obligé de s'adapter manam adapté ak poste premier ministre parce que ay textes ñoko textes mhm. ay prérogatives ak li nga kon loolu pour man après na gis na ñu bari ñu dagg bout phrase boobu di ko sànni il n'a pas été amna sax benen benen ki bu ñu ci doon génneewaat mm-hmm. mais je pense que limu limu limu wax c'est simple manam euh limu limuy def constitution moko may deful lo xam constitution may ko parce que constitution bi daf ko koy téré tey gëm na ne yaakaar na ne euh, son premier ministre daf lo loo dafay jéggi ay prérogatives wala constitution daf koy c'est ça alors euh, euh Mbow euh, yow yaa ngi nekk candidat à la candidature euh, bu ñoro euh, du Rip département euh, tey lan moo lan moo lan moo lan moo lan moo motiver en fait sa candidature. d'abord benn précision.